Alors là, je suis toujours à, la résidence des managers et entrepreneurs culturels, avec l'exception de la règle. La seule femme parmi les 14 garçons mhm. des 14 régions. Maintenant, mhm. hop. ok comment ça se passe la la mhm. en fait ñun euh, suñu structure structure bi ma fi de nekku na ci la euh, dañuy avons ci wàllu euh, graffiti dañuy yëngu ci wàllu événementiel ay formation parce que dernièrement avec l'ONG Accra on a eu à réaliser des formations de graffiti et de d'écriture euh, musicale dans les écoles de Sédio, les lycées donc c'est pas seulement le hip-hop et dans d'autres domaines aussi d'accord d'accord donc nous naa structure ñoo la fi yabal nga ba Sédio ñoo mm-hmm. nan nga résidence puis, Les nga fi trois jours nan nga ko dundee lan nga sentir est-ce que am na yokkute wala est-ce que li li nga fi xam xamoon nga ko wala nan la demee. non franchement pour dire vrai moom am na li ma fi xam moom xaw ma ko woon. Ah, parce que comme ni c'est c'est les quatorze raisons gis nga ni ñu fi dajalee euh, les quatorze raisons. Hmm. noonu la amee ay particularités parce que fii nii ku nekk. Euh, am na ñu bokk lu ñuy def mais la plupart bokkuñu lu ñuy def donc moo tax am na espèce fii laa xamee ne euh, photographe. Euh, spécialité la dañ dañ ci former ay nit ku melni ni ku jógee ba Saint-Louis ni mom il est spécialisé en cela euh, béy di bi jógee ba Kaolack kooku tamit seul spécialité am danse la manam fi jëlee naa fi lo xam franchement mosuma ko woon xam que né culture bi dëgg la am am na yenen branche mais xaw woné woon ne branche yooyu développé à ce point. donc am naa fi surplus. ok machallah comme que nga am nga fi surplus. Mhm. et mouvement bi am fini est-ce que mu ngi am séjour ou nan ngay juger mouvement bi nek Sédhiou tay côté tout ce qui est art urbain en fait pour au niveau de Sédio, art urbain bi euh, c'est pas tellement développé parce que nous ak Dakar fii xam nous nous ñoo ñu ëppal ay structure ñoo ñu ëppal ay équipement tamit mën naa la ñoo ñu gën a ëppal ci accessibilité euh, kii FDCU bi loolu moo tax euh, nga fax mais c'est pas tellement développé par rapport à vie te loolu tax na tamit sama structure lu gën a tax ñu indi ma fii pour ma jëli fi loo xam ne mën naa ko zone génnul ah, même si nekkee ne je suis une femme mais lo xam bama ba ma koy yóbboo tamit surprise bima ma fi jëlee ma yóbbu ko fa pour ñu gën ko mëna a développer gën ko mëna a yaatal. man bon xam nga lu tax ma japp ñu indi la en tant que femme parce que les femmes sont plus fortes elles sont plus fortes elles sont plus. voilà quoi ay patente ay macha allah donc ma loolu moo tax ma. japp en plus dans on est dans tous les domaines. voilà non yéen moom macha allah donc tay est-ce que wa Sédhiou mëna nañu am confiance ci yow pour li nga xam fi nga tasaare ko fofu noonu tu vois ak aussi bëggoon naa la laaj beneen question pour ñu terminer mhm. est-ce que les autorités de Sédhiou ñu ngi accompagner jeunes yi ci seeni passion en fait euh, pour la confiance je peux dire que mën nañ ko fi am parce que man en tant que citoyenne de Sédhiou man suis ma dem pour me représenter Sédhiou kon damay def le maximum pour me xam le maximum pour me pour me partager avec ak Euh,

Euh, bi. c'est par rapport aux autorités. aux autorités en fait euh, la comme nous ma la ko il y a manque de structure et autre chose ñu nous ñuy accompagner nag mairie bi mu ñuy accompagner mais euh, comme ni ñu ko waxee accompagnement bi dafa dafa des parce que on peut dire que dafa def de de côté côtés. na ñoo xam ne dañ koy sentir am na jeunes yu sentir dara dara loolu moo culture urbaine bi moo xaw de euh, dëgërul noonu parce que ah, booy booy dimbali jeune yoo xam ne ñoo bokk ci même milieu dang dang leen da ngay dimbali ñëpp daal doo xool euh, par parloo ci wala politique bi mais am nañu ko sentir mais am nañu ko sentir. ok les autorités yi nekk Sédhiou. Mhm. ay jeunes ñu ngi foofu noonu fexe leen affaire bi ñëpp sentir ko parce que ñëpp yéen a leen jaboote. ñun on est une équipe jeune. on est des entrepreneurs culturels aussi. Mhm. on est des artistes aussi. <laughs> l'équipe c'est Mindset. te bëggoon à travers euh, cette caméra de Mindset nga inviter tous les habitants ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi Sédhiou mën a adhérer mindset. voilà Inch'Allah. et euh, comme nous l'avons euh, j'invite à toute la population Seyou, surtout les jeunes et surtout les mélomanes et tous ceux qui sont actifs sur la culture urbaine à s'abonner sur cette chaîne parce que les gens qui rek bëgg ngeen culture urbaine et dans la culture gëm naa ne boo leen fi abonné incha allah di ngeen ko am te seen xol dina sent. merci beaucoup ok ça fait plaisir. ah ex to le la seen fidèle serviteur maa ngi woon fii te biir West Foire ci résidence des managers et entrepreneurs culturels next time ak yeneen vibe ak yeneen affaire yu doy waar.